cub 0 ak 5 ñaari 8 ab 6 ab 2 ab 8 ñaari 8 ab 6 ab 2 ab 8 nga dolli ci 1 ak 9 1 ak 9 tekki ab 0 ak 5 0 ak 5 wante nak budé sa sa e, crédit donut crédit ludut ab ligne la na nga xam ne doonu mën jot budé itam buña doonu mëna jot crédit lay doon bu mëna ci yi nga xamante ne mooy opérateur yi ngeen di mën a jaar boo ci mën a yor rek mooy bi def 75 wala 77 wala 78 wala bi def 66 euh, bu mu ci man doon rek boo ca defee crédit rek bu raxut dara defoo ko liñ danganu jot bu dee téeméer dinga nga dugg bokkul ak serveur vocal yi laaj ay junni yu bari bii moom ñu jël ñetti nit benn yoon wala fukki nit benn yoon naan xaaral tuuti ñu jël la moom par kenn lay jël benn bu mu jël balaa jëlaat beneen kooka daa génn kon ngeen bàyyi ci xel bu nit duggee di wax fii ak eh, coupé wut doo mën a dugg par kenn lay jël te itam boo jëloon sax déggante wut lay coupé ngir nga dugaat ngir bañ sa xaalis dem kon Baol Médias lépp da koo nose daal di koy loo ba mu tegu ci yoon muy njariñul yëpp kon 88. 628 19 05 mooy li nga xamante ne mooy eh, numéro bi ngeen di dugal ngir mën a bokk ci waxtaan wi ku jëndoon ab ligne wala buña wala yu demee noonu xamal ne doo mën a dugg bokk ci waxtaan wi boo jaaree foofu kon ñu leen di li ne rek Serigne Mayoro Dieng lañ tudde bis bi koo xam ne ji na lu baax ku ne kon jabootam ngi fi nekk eh, ñu ngi leen di ñaanal jàmm moo xam soxna yi la moo xam njaboot gu góor moo xam gu jigéen di siyaare soxna Ndey Jeng ak soxna Ndey Jaw ak Baay Njaxat Jeng ak ki nga xamante ne mooy sama naar bi soxna Ami Jaañ di ko ñaanal jàmm ak ñi nga xamante ne ñooy seeni bokk ak fu ñu bokkoo di siyaare eh, njaboot gu bokk ci Baye Cheikh Dieng kàddu balloo ji ñoom ñëpp sëñ daan daan sama mag nekk fële ca eh, Daaru Salaam dar maa ngi koy seer di ko ñaanal jàmm soxna Ndeye Gueye ca mesere sama mag di ko seer di ko ñaanal jàmm kon soxna Khoudia dafa mel ne moo wutu lees ci xarala gi eh, dafa bëgg yëf yi gën a neex kon nanu jox xalamu sëñ Keba mbay ñu del siwaat وفاتني مما يندنا باتاي كو يدن بجي لخام بو كاي نيه مو فالا سوي كلي وفاتني نيان بوك وقتا دختا يو بنت يا دغال تنيو توك سي كير جي واخ لكي وفاتني ما jërëjëf mbokk yi ñu fàttali leen rek eh, tey ci dibéer ji bi timis jotee la altine ji dugg muy lundi bi war a yemook le 9 janvier kon bés bi dafa yemook fukki fan ak juróom-benn ci fukki fan ak juróom-benn euh, dafa bokk ci bés yu fatt yi kon lim bi daa fatt waaye bés altine rafet na waaye lim bi moo fatt kon dañ ci moytu lu demee ni ki xeeti daloog eggale daraak yu demee noonu kon nañ ci bàyyi xel euh, kon bu ko defee rek muy altine ji kon dugg na fi mu nekk nii ñu bàyyiloo leen ko xel kon ñoo di leen aslëf ci wolof fos yéene ci ànd ak yéen ci ay laaj kon dañuy laaj lan mooy du ab du du bi mooy lan ci wolof bili bi bili mooy lan ci wolof ñu leen koy laaj eh, njéggite mooy lan njéggite gi mooy lan ci wolof mbaa sala bi yooyu yaar la laaj mooy lan ci wolof di leen laaj itam ndes tayu mooy lan ci wolof ndes tayu waaw mooy lan ndes talu tayu mooy lan way mi ci wusit mooy lan loolu leen koy laaj way mi ci wusit mooy lan ci wolof 88 628 19 05 88 628 19 05 mbokk yi mu mel ne wax nañ ne tey jii xew-xew am na waaye bala ñu ci ñëw dañ leen di wax léebu wolof wolof dane meew mu woyul tuur na lan mooy meew lan mooy way ak lan mooy tuuru ak lan mooy meew mu woyul tuur na lu mu tekki ci wolof lu ci wolof jublu kumpa moo ëpp ñay kumpa ëpp ñay loola wolof da koo léebu lu mu ci jublu kon mbokk yi yooyu waati wolof lañ leen andi la gun di leen xaar ci 88 628 19 05 xamal leen ne jàmbaar ju tabe woon moom lañ euh, duppee tey bés bi ngir fàttali ko ci muy Serigne a Dieng toog naa ba tàyyi nit di net li ci moom am na kook dana ma gis na boroom watiir boo xam ne daa am ku ko poñe mu am ak moom jafe-jafe mu yam ca ba mu agsee dane lan la mu ne dama ko lebaloon maanaam daamar ji muy fas yi léegi nag damaa war a fay walla ma yóbbu ko ci yoon mu daal ne ko ñëwal bàyyi ko mu dem lum la yoreen mu ne ko nangam mu yëkkati ko jox ko e yu mel noonu nag li muy gën a neexee mooy ñi nga xamantene ñom la ko defal seen mbokk moom sëñ Mayoro jeng moomu ñu dugg ci waxtaan wi séré lu baax lim leen defalon ci dem waye jamono ci bopam moom ba muy def yalla taxoon muy def nak da daan def diko neub amna yu bari yoy wax nañ nuko yum def yo xamne da ko doon neub amna yoy bi mu genné aduna lañoña xamne mom mom mo leen te ginnaaw bi mu nelawee lañ koy doog xam xam ne dépense bi ñëwagut ñu laaj ñu xamal leen ne moom mooy ki ko doon joxe kon wàllu kërit am na ñu dem ba ci tumuraanke mu fexe ba wutal leen ko ñu nekk ca ca xamuñu woon ne sax moom na ñi itam am na ñu leen leeral ne moom la waaye moom waxu leen ko kon kooko da doon def te yàlla tax mooy sëriñ Mayoro Dieng mi ñu duppee tey jataay bi mbokk yi wolof na kóllëre ginnaaw lay féete e kóllëre kanam baax na waaye dañu ne lu ne fàng kenn du ko jeex kon bu fekkee sëñ Mayoro Dieng da daan def lu baax ci àdduna rawatina tund wii di bawal mu dëkke woon fi rawatina dëkk bu sell bii ñu tànn muy Touba mu dëkke woon fi dëkkoon Daaru Xudóos fa jàk sa ko sëñ Sekk gëm Bàmba foofa nu daan gis yu baax yim daan def di ko déggit dëkk ko njabootam mu yar ñépp ci diine islaam yar leen ci ak dal yar leen ciy teggin ñu am lu ñuy jom mu am lu ñuy rus loolee itam yëgaguñ fu mu rocc koo ci ñoom ñu doon nit kersa di doon nit ñoo xamante ne mane wuñ wax ju bari ndax seen way jur jëf la mane woon ñu ca bari doon ko ci loola lañ ñañ ci xamanteel ñépp day doon nañ ko ci loola kon dañu ne wama sayid naa ilaa bi ma xalim naa kon li ñu xam ci ñoom moom lañ wax waaye yéen itam jaar leen ci 88 628 19 05 ngir leeral li nga xamante ne moom ngeen mën a leeral ci ay jëfam yu ngeen xamoon ñuy ñaan yàlla dolli ko ay leer kon mbokk yi ñu ne ci dëj bu mag accident bu rëy am bakkan yu bari loru ci ina lillahi wa inna ilayhi raji'un kon mbokk yi ma waxoon leen bi ñuy dugg at mu yees mi waxoon naa leen ne am na ci ñooñ weer duñ ko ci weesu am na ci ñoon ñetti fan lañ ci am am ci ñooñ ay bis am ci yoon ñeenti fan am ci yoon dinañ gunge at mi ba mu des ay fan am ñoo xam ne ne ay weer yu néew lañ ciy am ca kenn xamut ku kon wolof na ne seeres mbay dàgg mel na ne lu ne fàng deesu ko jeex tey ñaari bis yooyu di wata yuy dem ba mbëkkante jéye ju réy nii ama ca fële ca yoonu Kaffrine wa mel na ne dëggal na liñ leen waxoon ndax ña jegoon di daani seen doole mel na ne dee nañ ci xare kon ñuy defal seeni bokk ndax fii mu nekk nii dafa mel ne ba ñuy jóg fooguñu woon ne lu mel ni dina ci am seeni bakkan day des bis bi tey duñ ko fekkee muy dibéer ji jant du leen soye xamuñu ko woon yàlla nag moom xamoon na ne ñoom du ñu fekke bis bii mu dajale leen ci wata boobee kon sëfoor bi bi muy jógee dugg ci wataam benn tànkam mi ngi ko teg ci kaso benn tànkam mu teg ko ci bàmmeel kon nanu moytandiku yenn yi ci bu ñuy tukki xeeti xuloog meroog lum ci man di doon yaa xam kër gi nga jógee nga meroo doo dem yaa xam kër gi nga jóge fi nga amee jafe-jafe doog a dem donte meroo waaye ngërëmte jàpp na la ba bi nga fiy jóge jóge wu fi sago yooyu yëpp nañ koy moytu kon daal ku waaj bay dem fexeel ba boo mënta am mbégte amoo xel mu dal nga toog jàppaat weneen yoon ndax tëkkoonteeg nit li tax ñu koy moytuloo mooy tombee waral ay gaaf wolof di ko wax ndax bu boobaa bu dara amee rek mën na laa dëkkal néeg yoo dëkkut te fekk yàlla xam na ne doonoo ca dara tus doonoo ko ca kon jamono ji naqare yi nga xam ne nit ñi ñaaw njort lañ def ak fekk mbir ñu wëlbati ko tudde ko leneen nañuy moytu ndax yooyu yëpp pexey seytaane la ndax ñii yàlla boole ci wata bi malaakal mawti moom njëkkoon na ngir xam na ñoom lay rocceendoo seen ak ruu kon bañu ca daje xam na ne fee moom jekk na ngir rocc fa ay ruu kon nañ ci bàyyi xel kon képp koo xamante ne am nga gis-gis ci yoon yi ni muy doxe ak woto yi ni koy doxale ak sëfoor si ni ñuy doxale ak client yi ni ñuy doxale ak coxeur yi ni ñuy doxale loom ci mën di doon loo xamante ne mën naa jur jëye yoon na nga dugg fii ci 88 628 19 05 ci Baol Média leeral sa gis-gis wax nu ci ëttu baay seex ndax ëttu baay seex nee nañ ne ëtt la bopp day roote ci mag ñi di sotti ci ndaw ñi di fàttali mag ñi di jàngal ndaw ñi kon 88 628 19 05 soxna Khoudia nga andil ma كيبا ماي كي خلم ak دور Tour يا خالف المختار لا تنتزع فمن ينزع الفالمة ما تنفت Thank you. المصطفى خرنبو أبا طفل البارة قد رواه نادر في جسدنا المصطفى إذا صفصروا أبي صاحب من لا ابن الله بعد الزريعة له نور ثم نور نعم المبايو أبا طفل المختار روان مارينو بدل عبر وقت ابن من نعم لله أني قديم مجيبا لكم بلا ويخلى ويغلو ودم خاريا لا ليوا جوال مكة وين رو بتغنون برا زاب تاكو غير صفاتني ci ngeen baraam gannaaw yàlla maam jërëjëfati soxna Khoudia Diop moo nekk ci xarala gi nuy siyaare soxna Penda Diop ak soxna Soda Diop soxna Awa Ba ak eh, soxna Maguette Ba Serigne Ba ñong koy siyaare 88 628 1905 mbokk bismillah assalamu ah, alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum salaam ku bax koku serigne Modou Modou Diakhaté Dieng. ñu ngi lay Ba ci ñu ngi dalal ziar bax serigne Modou ñu ngi lay ñaanal jàmm. ta ah, ñu ngi contane lool ci émission bi. Uh-huh. di la ñaanal bu baax a baax. Uh-huh. Eh, di ñaanal serigne Modou jog mi momit hmm uh-huh. suñu borom gën ko taxaw bu baax baax. ba li mu yéene ci rajo bi suñu borom defal ko. ñu ngi am mbégte lool. ci jëmm ji nga xam ne moom nga jagleel bis bi tey. muy Serigne Mayoro Dieng. di sunu mbokk mu baax. ku yàlla dimbali woon. ni ko waxee rek ku mënoon a def lu baax la. te yàlla rek tax. ndax e, ni nga ko waxee rek moom da daan jox kum xam di jox kum xamul. te loolu nag mooy baax mooy tabe. dëgg la. E, loolu la suñu borom digle ci alxuraan. daa wax ne ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen. Hmm. ñi nga xam ne jox na leen ci na ngeen ci dépassé ci yoonu yàlla. dëgg la. E, njëkk bis bi nga xam ne day ñëw. Hmm. E, te mënta ñàkk muy faatu. Hmm. boo denc li nga yor ba bés ba ñëw. nga naan yàlla teg ma may ma xaar ma may teg maa mayaat tuuti. ab diir. ndax kon li nga ma jox dinaa ci def lu baax mhm. suñ borom ne déedéet mhm. nooy na loola bay yegsee benn minute duñ la ko mayaat dëgg la kon moom loolu la xamoon moo tax li ko yàlla dimbalee doon don doon na ci dimbali ay mbokkam doon na ci dimbali jaamu yàlla yi wér kon yàlla na yàlla dolli ko yërmaande amin eh, ci barke alxuraan mhm. eh, bërëb bii ñu nekk di fi jàngale alxuraan moo ci suñ loxo allah akbar te loolu xam nga ne loolu rëy la loolu de moom xawma ko woon ndax ba ëllëg yow ma la xam araf buñ ci jàng rek buñ fi jàngale rek mhm. dana jot ca tiyaaba ja dëgg la kon loolu dara mënu koo fay mhm. te bokk na ci ñi nga xam ne ñoom rek la suñu borom wax ne ñoom rek ñoo jarañee ci kaw suuf dëgg la mooy ki nga xam ne yàlla da ko jox alal mu di ko dépassé ci yoonu yàlla dëgg la ak ki nga xam ne yàlla da ko jox xam-xam mu di ko xamle te yàlla tax dëgg la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaar ñi rek ñoo jarañee ci kaw suuf dëgg la te moom bokkoon na ci ci kenn ci ñooña li nga wax ci njaboot tamit dëgg la ndax kii na ci bopp bi man naag moom duñ taxale ko ba bëccëg te loolu loolu xam nga ci lu leer nañ wallaay wallaay waaye fa fa fa nga xam ne moom la tego moom la ko moom la tegoon fa mu ko di deeloon ca loola la nekk mooy liggéey ak jaamu yàlla jaamu yàlla wér na waaw kon moom it ñu ngi koy ñaanal di ñaanal jaboot gi ñëpp ak jàpp ak njaamuram sunu borom guddal seen fan may leen wér amin amin ak sunu yaay ju baax ja soxna Fatloo. Mhm. waaw moom it ñu ngi koy ñaanal baax baax mu yàgg koo ñaanal. moom itam di taxawaay sunu xol na lool daal ci ci ci ci ci jagle gi nga xam ne jagle jagleel jagleel nga ko euh, émission bi. Mhm, mhm. ndax ak fàttaliku la te fàttaliku dafa am solo. wallaay dafa am solo. waaw fàttaliku dafa am solo lool. ak ma ko yàgg yéene ndax euh, ñaa ñaan yi ñu koy ñaanal. loolu da koy jëriñ fa mu nekk. kon yàlla na suñu borom yokk rajo bi. ba fepp fu dégg ab rajo rek ñu dégg ko fa amin amin da nga niil ma dese nak né ko gëj naa ko né ko bayina ma dé eh, wallahi ndaysan wallahi ndaysan <laughs> né ko bayina ma dé fan yi nim démé rek la bop bé xawat gis rek né <laughs> né ne wax ko lool rek né ko dina ko dégg mi ngi lay dégg ni ngi déglu ni ah mi ngi dégg mi ngi déglu kon bax na dégg wallahi jërëjëf waaw <laughs> ah, kay jërëjëf suñu eh, dañ doon dañ doon ki rek santaka ak ñaan rek waye suñu mayoro mom mom uh-huh. wax ci mom mom uh-huh. lu jafé la uh-huh. waaw wax ci moom jafe na lool lool am na ñeenat ñooy nag xamuñu yëguñu bés bi. Mm-hmm. te itam boo leen ko mënee jot li rek ci ci sa jollosu. waaw bu soobee ko defee nga aw ko ci mbaalu jokkoo yi. nga aw ko ci bari de buñ ko yëgoon yaakaar naa liñ bi dana xat. waaw ñu daal ndax lu ci am solo la ndax dafa rafet jërëjëf kooku mooy Serigne Modou Diakhaté Dieng. Mm, dégg ko moom jàngale atu akatu alxuraan la yor na internat yor daara waaye barab ba mu ko def nee sëriñ ma yoro moo ko ko jox kon dégg ngeen eh, loolu nee naa doon seeras mbay dàgg loolu laa bëgg damaa bëgg eh, ndax dañu sëñ Abdou Lahat eh, yàlla sëñ Abdou Ahad yàlla na ko yàlla dooleel ay leer dafa waxoon ne maane moom fu mu amee moo ne day tuxu kon bari na ñu ma dégg ñu wax ne moo nu defal nii moo wax lii moo def lii moo ko defee nii moo defal diwlee lee waaye li gën gënal ma mooy ñoom ñu dugg waxal ko seen bopp ndax wax naa ne maane fu mu nekk moo ne day tuxu loolu Cheikh Abdoul Ahad moo ko waxoon Cheikh Abdoul Ahad moo ko waxoon kon sëriñ Mayoro Dieng mu ngoogu yàlla na ko yàlla dolli leer ak ña ca barsàq ñépp kon kuy dégg suñu kàddu na nga teewlu def ben fatiha bu sel tek ñetti l'ikhlas ñetti l'ikhlas kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad señ ma yor jeng yalla ko yalla do leer ak ñam fa nekkal ñep ci barsax lolu yom na teewlu lolu ñu ko jele won ci señ cheikh mbacke fatma ndax ñaan lu mu bari bari ci ànd ak teewlu gi ànd ak teewlu da koy gën a dëgër moo taxoon mu ne bu jamono na xëy jot amatut xelee toogatuñ kon ñetti lexlaas yu ànd ak teewlu day wecc ab kaamil ndax ma nga aju ca nang ko sababloo ak yéen ja kon inamal ahmala bi neeti ñu bàyyi ci xel bu baax yalla mom xamna na la ci xol yi yalla mom xamna na la ci xol yi kon sëriñ Mamadou jaxati mom mu ngeen deg mu dugg ne moko ko tabaxal moko ko jox barab bobu mu tabax jojje kon mom jangale katu alquran la imam la itam jite jiite e, julli et yi ngeen deg makoy andi fi. ci angal islam fofu ci daru xudóos dendak keur sek gëm ma fete ko wetu sow ben modde dox ci diggante bi fofu la daram nek jumaa jaat fa la nek ñu fay julé mu koy jité khutba yi may andi ci radio yi bisub it mom momu genn mo koy def de nga li mu ci sëriñ Mayoro jeng kon njabot gi yalla len yalla defal jamm ak soxna fatla momu nga xamantene mo fa tok ba lepp fekk ko fa soxna Fatloo ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm e naka noonu njabootug bay Cheikh Dieng kàddu balloo ji gépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm njabootug sëñ Massamba Dieng gépp e yéen waa marché maam ramaat dégg ko seere yi tiir nañu ndax ki ñu ko jagleel da koo ji ci doomu aadama yi kon sëñ Modou jaxate jeng dugg na doxal na kóllëreem digganteem ak sëñ Mayoro Jeng yàlla na ko yàlla dool leer ak ñam bu fekk ñëpp kon yéen a ngi ànd ak Baol Média FM 88 point 5 mooy fréquence bi ngeen koy mën a amee ëttu Baay Seex mooy émission bi di am gaaw ak di biir muy samedi ak dimanche ngeen ci ànd ak Baay Seex Gaye Rijaal bëgg fàllu noo ko boo ko bëgg soxna Xujaana ci xarala gi ku bëgg dugg ci émission bi da ngay def 88 628 19 05 muy juróom-ñett fukk ak juróom-ñett juróom penn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent tous juróom am nga ku nekk ci jokkoo gi salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah wa ah, Cheikh ni ngeen def. Sekri ku baax kooku sëñ Moustapha wala. man la ah, di <laughs> am na solo lool. <laughs> dëgg la dëgg la wax nga dëgg. waaw di ci di ci jàngewaat mu ñu soññiwaat lool it bu baax nag. Uh-huh, uh-huh. waaw kàddu yi euh, sama baay boobu mu sëñ Mourou Diakh di dégg naa bi léegi. dëgg la lool. dëgg la. waaw moom moom xam nga ni ko waxee rek sama lépp la. Uh-huh, waaw. <laughs> dëgg la. ñu def sëñ Mourou moom li nga waxoon rek daanaka mënuñoo seere ci moom rek. wallaay ñun daal liñ gën a liñ gën a jàpp ci moom daal. mooy fooy dox ci réew mi ci àdduna ci réew meeg biir fu ko xam daal ba ñu ne la doomam nga moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. bu la nekk la ay jaar-jaar bu loo xam ne sax yow keroog nga koy mos a dégg. keroog nga koy a ah, xam ne keroog nga koy mos a dégg moo la jur waaye keroog nga koy mos a dégg. la ilaha illallah. waaw yooyu nag boo koy dégg léeg-léeg comme fii kenn saxu fi. Mm-hmm. da nga naan ne lu waay mën a def rek ci lu baax na ko yokk. dëgg la dëgg la. waaw. <laughs> Uh-huh. dégg nañ ci émission bi lool nag. dëgg la Dieng. man nag ma Média dama ko daan déglu waaye ma xam ne sax yow nii nga fa dem waaye man dama koy déglu man. ndeysaan. suba gi am na benn débat bu fay am ay diggante huit heures ba dafa ko déglu. dëgg la dëgg la dëgg la mooy Baol matinal. waaw. Uh-huh. Euh, Baol matinal bi waaw. Uh-huh. alhamdulilah. jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi sant bu baax nag ñu ngi sant bu baax suñ borom téyel ñu kóllër gi dëkkandoo gi lépp rafet. Uh-huh. waaw jërëjëf jërëjëf gay dégg nañ lool. ndeysaan jërëjëf ndax yow bi sax daa am yeneen service am. ndax fi ne boo xool ne ay weer yu néew a ci moom bi mu fi jógee léegi man ñaar fukki at yeneen lay doon. seetal ah, loolu rek yaakaar ci weer wi nag lañ koy ñaanal sax bis bi mu weer bi mu fi jógee woon maamu koor xam nga yaakaar naa ci maamu koor. ci maamu la fi jógee woon xam nga. laa ilaaha illa loolu jàpp ma ko woon. waaw moo tax sa émission bi moom. ndeysaan jërëjëf. <laughs> sa émission bi moom bari na kii moom. ah loolu de kiimaan la. ah yàlla na yàlla barkeel rek te sàmmal ñu kóllër gi sàmmal ñu bokk yeeg dëkkandoo gi ndeysaan waaw jërëjëf Guèye bég nañ lool. bég nañ lool sëñ Moustapha bëggoon nañu itam ay xaritam nga seet ci ñenn rek nga jàllale leen. waaw moom kay xam naa dañu kii waaw danañ am ñu jéem woo ba xam. Uh-huh, incha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf danañ am ñu jéem woo jërëjëf Guèye jërëjëf jërëjëf. jërëjëf kooku mooy sëriñ Moustapha Dieng eh, di doomi sëriñ Mayoro Dieng moom mu nga xamante ne moom la ñu duppee bis bii tey. sëñ mooy yoro doonoon ku baax koo xamante ne amoon nag dal moomu làmmiñam bokkoon ci ñooñee nga xamante ne yàlla dafa wax ci ñoom waaye la yàlla wax ci ñoom nu déggoon xalifa général murit eh, bu ñëpp joxoon cër muy Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne ñooñi nga xam ne Mayoro sëñ Mayoro da cee bokkoon muy tab ndax dafa waxoon ne ab tab moom sañ Abdou Lahad ne tab garab la goog ku ca jàpp car boo ko bàyyiwut mu yóbbu la àjjana na itam mu ne woon garab la gu sax ca sawara ku ca jàpp car boo ko tëë bàyyi mu yóbbu la sawara moom nag yàlla bokkoon ci lim ko baaxee muy tab goo xamante ne am na tàmbali waaye amul ab yamuwaay ndax dégg nga kooku génn léegi muy Serigne mu Dieng nga xam ne sëñ Mayoro Dieng ngay wajuram xam naa ko bu baax am na yar am na teggin am na dal yal na ko yàlla lafal cat lafal ko mboolem ku ma bokkal meen wala gaño lafal leen bët bali seen wajur wa sëñ Mayoro Dieng mébatoon dem bàyyi leen ko lépp ñu àggale ko seen mébéti bopp ak seen coññitee bopp bi ñu soññ koo ci moom yu bokkul ak la nga xamante ne xamoon ko ci nañ ko ci moom yooyu yëpp ñu def lu ko raw fuuf yàlla nañ sut seen baay ba fan lem fan waa juróomi yoon gudde ko aw fan te ànd ak wér ak wérle yàlla nañ dund lu leen soob te itam bu ñu tële bu ñu ñàkki gët bu ñu ñàkki gëñ bu ñu ñàkk imaan bu ñu ñàkk ihsaan bu ñu ñàkk li nga xamante ne mooy coloré ndax ñàkk coloré yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal ndax nit bu nekkee yow séq yow lu baax ba dem war ngay nemm ko njabootam war ngay nemm ko ay am di jàmmam sa kemtulaay kartan li nga mënut yàlla tegula ko war ngay xool lam gënoon bëgg nga di ko ko sar xeel war ngay di ko ñaanal yàlla musal ko kon e, nay yal nañ ci yàlla musal waaye wax nañ ne tabe yéefar bi nga xamante ne gëmut yàlla waxuñu la ko am diine de yéefar nga xam amut diine gëmut yàlla lañ la wax bu tabe woon sax yàlla du ko lakk waaye ginnaaw yéefar wër te mën a dem sa aljana ndax doonut koo xamante ne dina fa mën a dem ndax daa weddi yonent yi yàlla yónni kon dañ ko yóbbu laxraaf du lakk kon di xoolal ma tab ni ma amee bénéfice te itam di jagle ko ku ko yàlla jagleel santal yàlla ndax yaa ngi dund xamoo bi nga xëyee di nga àgg fa nga jëmam déet ni ma ko waxe woon ci bis bi nga xam ne mooy accident bi am ca 6 kilo ca yoon a Kaffrine wa ñooña ñëpp ba ñu xëyee ku ne dangaa ñaanoon yàlla àgg ak jàmm moom nga yéene woon donte ñaanoo ko am na ñooñ bu ñuy jóg moom du ñaan du ñu duñu ne dara dañaan ma dem te ñëw na ci seeni téléphone ñu ci ëpp waaye li wér te wóor mooy inamal amal ya bi ñu yete ba ñuy jóg ñu ngi téléphonante tefenan téléphonante ngir lu ñu dundale seen njaboot ngir fa ñu jëm luñ ca jaay ak luñ ca jënd ak luñ ca amee ba mën koo dundale seen njaboot luñ ca amee ba man koo tedde ñii di wuti luñ joxe addiya ñii jógoon ngir wuti lu ñu bégale seen ndey ji leen jur ma wax leen ne wolof njaay dafa lépp waxoon naa ko fii ci E sama léebu yi ma jaxewon kumpa ëpp na ñay kon kumpa ëpp na ñay dikk na fofu ndax fi na man mi di wax ak yeen ak yeen ñi deglu waraf dana kumpa ëpp na ñay moy man na mu ndoxee ñaari fan wala ñet da nga ci dégg da man de ndekata sama mbokk diw ci la bok wala man de sama xarit diw ci la bok wala man de sama mbokk diw ni ma jegee xaritam diw ci la bok wala mbokkam mu mbokkal nangam ak nangam ci wàllu baay ci la bokk wala sama doom ja doon sëy barab sangam xaritam ci la bokk wala ki mu xaritoom muy benn bakkam ndeyam wala nijaayam wala baayam wala xaritam ci la bokk bu ko defee yow fekk na yaa ngi doon ñaan naan yàlla leen yàlla xare àjjana ndekete yow sa mbokk ca la bokk moo tax wolof ne kumpa ëpp na ñey lu lépp daa lëmu ci kumpa ëpp na ñey fi mu nekk nii ay nit a ñekk ja ñoo xamante ne bala ngaa xam ne ci accident boobu lañ bokk mu dem ay fan mën naa demi weer ni mu tëddee lay doon rek te fekk yow yaa ngi ñaan sax yàlla xaare leen àjjana waaye ndekete yoo boo xamoon loolu sax da nga koy booleeg yeneen ñaan yu gën a euh, tiifañ loo kon lu waaye man ci ñaan ñaana leen na ko def genn ñaan ngi goog Seexul Xadim moo ko wax ci li ñu jot li ne ku julli ba noppi def ko saayoo sa xel demee itam ci way daw nga def ko muy wenn xeer nga lare ca ñetti picc ndax wolof dane lare du man njam waaye nag picc ya toŋe la wolof dane lare du man njam waaye na picc ya toŋe la am na nag ñoom dañ naan ne picc tooge waaye picc du toog day tong walla mu dal ci suuf kon yow mi sànni saw yat jamono ci ñetti picc loola mooy lare kon fii Seexul Xadim dafa wax ab lare ginnaaw boo jullee walla sa xel dem ci way dawli nga di leen ñaanal nga jàng faatiha muy faatiha nga def bismillaahi rahmaani rahim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 nee cheikhul khadim xadim dane dina jël juroom yi defal la ko dawalu bàmmeel yow mi nga xamantene ne yaa ñaan ñaan gi ñaanal ko way dawlu yi juróom yi mu jox ko way dawlu yi juróom yi ci des mu jox ko sa yaay way jur bu fekkee jiitu nañ mu jox leen ko buñ mu defal leen ko dawalu bàmmeel dégg ngeen ko bu baax fukki l'ikhlas ak juroom ngay def ginaaw fatiha gu nek and ak bismillahir rahmanir rahim akuk teewlu sëriñ Tuubaa nee dinañ jël juróom yi defal la ko yow mi ko ñaan dawalu ban bammel so faato fek ko fa way dawleet ñu defal leen juróom yi jox leen ko ñoom itam muy seen xewal juróom ci dess ñu jox ko sa yaari way sa nday ak sa baye bu fekkee ñu ngi ci àdduna ñuy jiital leen ko seen bàmmeel bu ñu demee fekk ko fa ëllëg seen seen seen seen seenu daw dawalu bàmmeel lay doon bu fekkee ñu ko fa mu mu fekk leen fa te ki nekk yomal xiyaam bàyyi leen ci xel 88 628 19 05 ku bëgg a bokk ci waxtaan wi da ngay def ñaari juróom-ñett muy ñaari 8 def ab 6 ak 8 akub 2 akub 8 1 ak 9 ak 0 ak 5 mbokk bismillah asalaamaaleykum. salaamaaleykum soxna si génneel ma ko ndax dafa mel ne jaww eh, ji day bang bangi ca bëgguñu crédit eh, dem 88 628 19 05 muy ñaari 8 ngay def defub 6 akub 2 akub 8 defub 1 akub 9 akub 0 bu ko defee. muy 88 628 19 05 boo bëggee am fréquence bi nga def 88 point 5 muy ñaari 8 akub 5 muy juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ngay def andil ma xalam. وفي دنيا وأخرى من الكرب jërëjëf soxna Khoudia ñu ngi jéggul ci dog-dog boobu dafa mel ne dafa am ku woote woon ci jollaseg bi waaye ci laay jëlee li nga xamante ne moom laa leen di badd 88 628 19 mbokk bisimilah. salaamaaleykum. ku baax kooku. borom sango bi. ndeysaan dese naa koo dégg. Eh, waa génneel ma ko mu jaar ci 88 629 19 05 foofu daa mel ne déggante wun génneel ma ko génneel ma ko mu duggaat. kon mën ngaa jaaraat ci 88 628 19 05 dafa mel ne foofu déggante bi daa neexut waaye boo defee 88 628. ji nga defoon rek teg ca 19 05 muy 1 akub 9 akub 0 akub 5 dinañ déggante dafa mel ne booboo gën a leer ñaar yëpp ay dox na waaye euh, ngir ma dégg la moom moo xaw a jafe 88 628 19 05 mbokk bisimilah. baa Cheikh. Seck Ridial ku baax kooku waa Jili Mbaye. maa ngi lay nuyu di lay euh, mbégte bu baax. borom bi rafet na macha allah. jërëjëf. waaw ñu ngi am mbégte bu baax a baax yow moom eh, kenn nga daal. ndeysaan kenn nga. ndeysaan. waaw ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag bàyyi la suñu kanam bu baax a baax. bàyyi ah. maandu. <laughs> Eh, waaw bàyyi maandu de. <laughs> waaw waaw waaw na artiste artiste international. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. waaw nii moom mu Diop ne ko nag. Eh, saa bàyyi quoi nga ñëw gisante nga ñëw déggante. ndeysaan. waaw ah, moom moom sama waay la woon sama waay la woon sama mu sama sama way bi mi ngi lay nuyu de soxna Khoudia Diop. nuyu ma bu baax baax nekk maa ngi koy bëggee. mi ngi lay bëggee nee na de. ci say soppe la bokk. jërëjëf kontaan naa ci moom. jërëjëf. bu fekkee bàyyi maa ngi merci. jërëjëf kooku mooy bàyyi Djily mbay Touba Sénégal may siyaare waa série doomu buur ñëpp nag euh, di euh, benn série boo xamante ne wàllu aada ak cosaan lan fay doxal muy mbatit mi euh, di wax ay waati wolof yu wér ma séq ko ñoom moom moom mu bind ko di ko doxal muy loo xam ne àddina warngal képp fu nekk waaye nga ko di ko bëgge di ko xaar ci YouTube bi lay daw waaye ñëpp nga koy xaar fii mu nekk ne bis bu set nga gis nit ñi di ci eh, def li ñuy wax commentaire ñu koy sant di ko gërëm muy xaritu Modou Diop caat mii lool nag ba am yoo xam ne Modou Diop dénkoon na ko ko fii ci rajo bi sax waaye ñàkk jot gi moo ko ko xañ kon bàyyi jili mbay Touba Sénégal Sango Gouma moo duggoon ba génn noonu ñu koy sant di ko ñaanal jàmm 88 628 19 05 mbokk yi ginnaaw nañ ko waxee rek ku bëgg a dugg da ngay jaar ci 88 628 19 05 juróom-ñett fukk ak juróom-ñett juróom benn téeméer rek ñaar fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent tus juróom mooy limatu jokkoo bi nga xamante ne boo jëlee sa jolosu rek euh, boo ci jaaree incha allah dinga nga ñu jot ñu waxtaan ak yow boo fëggee rek ñu ubbil la euh, kon noonu la demee way daw lii boo leen ñaanale fukki lix saax lixlaas ak juróom bénéfice boobu nga cay am kon euh, le baax dafa yomb waaye dafa jafe ndax saa yu for yombee sëgg jafe wala fa ko wax kon am na waati wolof yi fi nekk ñu fàttali leen ko rek ku ko mën a tekki boo duggee itam nga jàppale ci way mi cius eh, bokk na ci way mi cius ñu bàyyi ci xel waati wolof la ak eh, li nga xamante ne mooy ndes tayu ndes tayu itam ci waat yi la bokk kon ñu bàyyi ci xel sëriñ eh, Baay Jili Mbay dugg na léegi 88 628 19 05 ku baax kooku bisimilah. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku kooku. Fallou Ba. Fallou Ba. waaw. Sëriñ Fallou Ba foo nuy wooyee. ci fan. Touba Pound. waaw. waaw. Sëriñ Fallou Ba. lo andi won ci ëttu bay cheikh ha mané lo bëggoon wax ci émission bi man déglu émission bi de ah looy déglu nak ma nga damay woot ni rek eh way yow ya bax fallu ba billahi oh fallu ba ya bax ma japp rajo fi mu ne waaw da nga koo jàpp mun ma japp ah mënoo ko japp dédé waaw waaw waaw émission bi nag ay baati wolof la ñuy def waaye dañ koo jagleel ku ñuy wax sëñ Mayoro Dieng. waaw. léegi nag bu fekkee xam nga ko loo mën a seere ci moom. waaw. sëriñ Mayoro Dieng doonoon def kat lu baax mu nekkoon ci Daaru Xudóos. Hmm. xamewul pël ak wolof ak tukulóor ak njaago ku ñëw dis ko soxla mu def ca la mu man te du xam foo dëkk du xam la ngay wax lu wér la wala lu wér boo ko laajee mu jox la ba noppi du la ko xoole te bu da koy nëbbu sax. billaay. loolu daal la ko yàlla defaloon moom nag ñu tudde ko émission bi def lu baax nag yow loo ci xam ci ku koy def. Mm-hmm. kuy def lu baax yow loo ci xam. xanaa fii la si dégg rek. wallaay wallaay. waaw Fallou. dinaa gis ci émission bi soobee yàlla dégg waaw léegi dama doon laaj kosom nofru jeegom. ah. kosom nofru jeego. waaw moom laa lay laaj mooy lan. kosam ñëpp jeego. Mhm. loolu de moo kaw moo. kosam nëf lu jegu. Fallou. Eh, jërëjëf. kosam nëf pël bi na xamu ko mooy nag wu ëmb ba noppi di nampal ñaari noppi nag wi mu ëmb ak ñaari noppu nag wi muy nàmpal ak ñaari noppam muy juróom benni nopp muy kosam nëf lu boo rattee meew moom mi def ko wayal ko ba mu doonum soow moom la ñuy wax soow moo xamante ne juróom benn nopp la muy kosam nëfu jeego kon fàllu jàppal boobu njariñ daal bal ball kon foofu 88 628 19 05 ci ngeen di jaar ngir mën bokk ci ëttu Baye Cheikh muy émission boobu dañ ci dekkal démb di ci waxtaane tey itam di roote ci mag ñi di ko sotti ci ndaw ñi Baye Sada Dieng ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm baay amat Amadou Bari Baye Ousmane Gueye ak tay euh, Taysiru Asir ak ki nga xamantene mboy mooy mangona ci am Baye Talla Diagne euh, sëñ Ahmadou Bari ñu ngi len di siyaar sëñ abdoulat Sall ca ikap FM ñu ngi koy siyaar di ñaanal jamm sëñ Makani Mbay Baye Cheikh euh, kan donga ca Taïf ñi ngi len di siyaar di len ñaanal jamm kon 88 628 19 05 ci ngay jaar ngir mëna bokku ci li nga xamantene moy émission bi kon ay caxa ngi fi ay léeboo ngi fi kon ma waxoon la na kumpa ëpp na ñey ci laa nekkoon ak yéen wax leen accident ba am na ca ñooñ bi am foofu ci euh, euh, yoonu Kaffrine yi am na ci ñooñ dinañ dem ba mu yàgg ñu doog a xam ne ndekete seen seenum nangam mbokk na ci mbokk mi bisimilah 88 628 19 05 salaamaaleykum na ah, sori rajo bi tuuti rek sori rajo bi tuuti rek. sori rajo bi rajo bi na ngay sori rajo bi wala ngeen wàññi ko. bisimilah bisimilah na wàññi rajo bi. salaamaaleykum waaleykum salaam. maa ngi leen bu baax a baax. Oh, nañu xaw a rajo bi mbaa ñu toppale ko bisimilah. man soxna Bédié Seye teenu maam Cheikh. soxna. soxna Bédié Seye teenu maam Cheikh. soxna Daba Seye. Bédié Seye bëgg fàllu. soxna Bédié Seye bëgg fàllu. waaw. ñu ngi lay siyaare. delloo naa leen siyaar bi bu baax a baax a baax. ndeysaan. di ñaanal kooku dem yal na yàlla yokk leeram. amiin. ne loolu nga wax ci ndëstay. lay wax ndëstay mooy sunguf soo tooyal xëye ko ëppinde. waaw. loolooy ndëstay. sunguf soo tooyal. paye ko ab inde paye ko ab inde waaw lan moo cay eh, ndesta yi mooy suuf si ginnaaw buñ ko tayee ba noppi waaw lañu cay kollatee woggati ko teg ko nële waaw moo tudd ndesta yu moo tudd ndesta yu dafa eh, sugg si tooyal ko uh-huh. nooñ gi uh-huh. tayee ko inde bi tayee ko inde bi jare ji suusee nga tibb ko moxoñ delloo ci uh-huh. loolu mag ñu jëkk ñu moom lañ daa de way mi cius nag. ah. way mi cius. way mi si. way mi cius. way mi waa lan mooy li nga xamante ne way mi cius boo ko boo xam naa da desee dégg lan mooy wéya ngiit. wéya ngiit mooy cere ji nga laya laya lay ba wéya ngiit di ci. Mm-hmm. ci tamit bi waaw loolu la ñuy wax wéyandi it. daa ko tereb lan mooy cere ñuy wax ne. Eh. góor dëgg la yàgg naa koo dégg cere càqa mooy lan. càqar mooy cere joon jaan ja. <laughs> ndapp ndiir ko léegi. lan mooy ndapp ndiir moom ko léegi togg ko léegi. Uh-huh. mooy njaan ja. lan mooy càqa. càqa mooy mooy cere cere ju amut laalo. cere ju amut sabut laalo. waaw. lan mooy ndapp ndiir. lan. ndapp ndiir. cere ji dafa ndapp ndiir. ndapp ndiir mooy doom doom bu sew ruuj boo xaay da nga lii du ko. lan mooy bopp tef. waaw bopp tef. lan mooy bopp tef moom mooy mooy cere ju di ci. <laughs> lan mooy aw yenn. bëgg faa lu foofu lay yem. <laughs> waaw waxuñu aw yenn nag aw yenn. <laughs> waaw. Euh, bëggoon naa ko laaj eh, Rébé Sembèr eh, laaj ko aw yenn 88 628 19 05 ñu koy euh, siyaar di ko ñaanal jàmm soxna Jare euh, Jare Sëy di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm bëgg fàllu noo ko boo ko bëgg fekk nga fi bàyyi seex ngay jàll bëgg fàllu noo ko bëgg sëñ fàllu moom day koo xamante ne Eh, ànd ak moom dafa gën a wóor ndax dañ ne suñ fàllu ko ànd ak moom raw nga loosal mu jot te day laab loola pit dafay neex fóota dit dafay nooy nga dee mu yóbbu àjjana mbàkke fóot la biteeg biir mbaam nga mbàkke ñoo ngi mun naa naat fàllu eh, garas magi bas bas faatu mu moom daal di lan moom sëñ basiiru taq di sam ku dem dugg àjjana magi sëñ abdulaat mbàkke sëñ abdul xaadir ak sëñ murtala mbàkke eh, ki nga xamante ne moo fi tax taxawal al azhar 88 628 19 05 dafa mel ne soxna si kon da nga may andil euh, xalam sëñ Keeba May ak Salimto ñu doog a jàllaat ci li nga xamante ne mooy waxtaan wi ku bëgg woote na def 88 628 19 05 bu mu doon bu ñaa bu mu doon bonus waaye boo amee téeméer dugg boo amee ñeent fukk dugg boo amee lu ko ëpp it wax ba ne xaaw lu waay def boppam acca ذهب فمن ينسوا فالمد متان مقدر سلمت دوران مرتجا لربي باب لم يكن مرتجا يا خادم المختار لا تنتظر فمن ينزل الظلمة ما تنفته jërëjëf soxna xuja Diop moo nekk ci xarala gi yéen nga ànd ak Baye Cheikh Gaye Ridial bëgg fàllu noo ko boo ko bëgg émission bii di ëttu Baye Cheikh ma di leen wax ne bu dee ci wolof dama naan seen wëppawu ëttu Baye Cheikh euh, ngeen ci ànd ak bëgg fàllu noo ko son bi bi seen woppaw atubaay seex ñu ngi ko duppee tey Serigne Mayoro Dieng doonoon defkat lu baax ku xamoon ne itam fii du saxukaay jaar jàll te dañ fii liggéeye ngir jariñu ëllëg eh, waaye waxoon naa leen ko démb ne leen koo fi dégg ñu koy tudd kum mën a doon jigéen a ne ca ginnaawam kon bu fekkee ne yàlla boole na la jigéen ju baax na xam ne am nga sens e, yàlla nag dina nattoo góor jigéen joo xamante ne e, nekkut jigéen ndax dañu ne jigéen soppalte bul wóolu waaye bu demee ba nga xamante ne bokk na ca jigéen nag dañaan jigéen soppalte wóolu kon mën nga koo jox sa secret mën nga ko dénk say mbir dana la suturaal dana la sagal dina la muñal kenn du ko xamal dara kooka mooy jigéen bu ko defee kooko la ñaan soppalte waaye jigéen nag bi mu ko doonee nga xàmmee woo jigéen la ak jigéen la wala jëgën la jigéen la daa waaye xamoo ko jëgën la wala nga jëgënut kon moom lañuy jox léebu woowu bu fekkee dem na ba bokk ca jëgënut kon moo tax ko ci waxoon loolu kon ma waxla ne soxna fàttiloo ñu koy siyaar di ko ñaanal jàmm ndax xam naa ko noo dëkkoon foofa ma nekk kër sëñ Rijaal Seck gëm Bamba eh, ay ati at féete fa eh, sëñ bi teg ma ci kanamam may dem ak dikk di ko gis di ko dégg di xam la muy séq ak donga yi ca xam nga ne dañu ne la booy wooy boo dee ñaani jabar bu foofa amee ay donga rek jigéen ji ngay natt rek natt ko ci laaj ko dongo yi donc bu la ne kee ku baax la rek kooka daa dee ku dee ba pare ci àdduna la di dund dox la donc moom na ngay defal léegi tey ëllëg defaloo ko mu xarab la donc moom loolu jikkoom la ndax man damaa jaar ci donc daara jàng naa alquran yelwaani naa murit naa dekk ak ay donga nag nekk ak ñoom ñu ñëw fi man ma leen di digal di leen tere di ànd ak ñoom di leen jàppale ñu may jàppale ñu jàppalante kon li ma lay wax xam naa ko jigéen moom bu demee ba donga ne la ku baax la rek koka mom dafa dé ba nopi manam nafso mom ray da ko topul dara aduna ndax donga ci bopam da yombut yombu te gërem boko noppé dafal noppi na la gërem ci ak mi ngi nek ci daara ji nak ci ndonga gi non la waye buñu démé nak ba bëru ba bok ci aduna ndax donga mom du nit ndax dañ la war né fim na li nga xamante nit moy daw biirub donga loolu mom bo xolé gis bo lambé dañ dañ dan wax sax ñun bi nek ci daara ji ñu di la nit donga yàllaa ko defaloon na alxuraan moo mel noonu ma wax leen benn secret wallaay laa sim jarabu naa ko am na feebar yu bari mi ngi lay sonal di la sonal tey jii demal fa dongo yay tuur ndox ba yëg summi saw dal teg fa sab tànk feebar boo fekk fas ko ci day deñ maa ko bu ca kër Baay Matar Faal ca saam am lu ma la jël sonal ma lool ma dem fa def ko yëkkati sama tànk bi teg ko ca gaanuwaayam dongo ya ronale sekket dem jeex tàkk nga xam ne kon alxuraan yemul ak dara nañu bàyyi xel li ñuy def ak li ñuy wax newoon naa kër sëñ Mor Mbay Siise di dem ci sëñ Mor Mbay Siise di ñu ko yót ay wan wa in yàkkaadu ak i mu dañ moom ay wa ak i melal xaqi da ko faraan def melal xaq yooyu néew ba fa masaa jaar dañ koy jox buñ demee moom dañ koy suuraale suuraal kuñ ko suuraale nga texe sëñ Mor may siise nekk na ma ak moom lu yàgg di fa dem gis ni mu jàppe woon àdduna kenn ku ne boo dikkee mu jox la sa cër ca bëggu ci dara rajom ba bu ko xasaa xëy taal bu fayee minuit la minuit ci guddi la rajo Dakar daan tëj amut luy jàll ci rajo moo xam lu mu doon misigoo taaxuraanoo tama yaag sabar yaag jaalu mbaan yaag lépp lu ñëw rek di jàll mu ne boo bëggee li eh, li eh, boo bañee eh, li nga li nga bëgg a déglu raw la faaw nga déglu li li nga li la gënalul te lu la gënalul am na keneen ku mu gënal moom dund googu la daan dunde saalam ba boo fa masaa dem fi ma xam ne fi la daan bindee nit ñi dafa ñëw mu leen di jox xéewale ñuy dem ku nekk jàngoro ji la indi da ngay gis photo président monde bépp wu ne da ko fay taf kilifa yëpp wu ne mu taf ko fa sëñ Abdoulaye dikk na fekk na ma fa nuy si ko sëñ Mor baaxum borom léppay baax yàlla na yàlla doole leer fekk na ma fa nuy si ko maa ngi siyaare daam Tambédou sama jarbaat ak Mor Tambédou sama jarbaat nekk ca Ndindi di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ak sëriñ eh, Abdul Karim Abdul Karim Makarimal Akhlaax ak liggéey bu réy bi muy def ci li nga xamante ne mooy njaboot gi di leen ñaanal jàmm kon loolu mooy àdduna. kon képp ku fi nekk rek ñu koy tudd rek jigéen na ko jàppale loolu am na lu ma ci leeraloon démb ci émission bi ma tuddee woon Baye Mbaye Dieng kon sëñ Mayoro Dieng soxna si gisoon nañ nam taxawe ba mu fa jógee gis nañ la nam taxawoon dara dañu ca boo demee donga yaa nga fa ma ngay togg xéewal yi joxe boole ko xol bu tàlli bu laab mu am nday la ndey la ci wér yàlla na ko yàlla saxalal loola ak njaboot gi mu dunda dunda dund téeméeri at yu topp lanu soob te ànd ak wéram ba tey ci wolof ba ñëwaat am na ñooñ dañuy waxi olof eh, léeg-léeg ñu wax ca baat yoo xamante ne boo ko seetee baat ya boo ko toppee daanaka ci fa muy mujj gënut muy da ngay gis kuy ñaanal nit naan ko yalla nga dund bay joy céere yi bëccëg man de ku ko kenn ñaanal ñaanuma ko yalla bugguma ko su ma ko naree def yalla na wuy ji te wuy ji ci mujj gu rafet céere yi bëccëg ku dem ba koy di joy ci aduna nit magata magat ba xàmmeetul janj ak jor dara xamatu ko ci aduna ñi ay sëtam diko jéppi ay dekkandom diko jéppi ñi nga xamne am ñu xel ñi am xel moom dañ koy yërëm ñewente ko xam ne mën nañoo dem ba lii dal leen waaye ñii dañ ko jëpp nuñ ko ñaanale nit faalu nuñ li maa kii dogal di borom kun di dogal di rahman di dogal di rahim di dogal di di ki nga xamante ne mooy latif di barun karimun di ki nga xamante ne mooy wudut di aji kekkantoo ji di mu jib ki nga xamante ne dara ëmp ko moo moom lépp nekkuma ñaan ma may la boo santee ma dolli la nga dem bay ñaan ci yàlla di ñaanal nit di ko ñaanal mu dem ba dootul xam ci àdduna dara di dikk ba bëccëg muy jooy naan cere laa bëgg waaye waaye loolu nu ko nit di ñaane boo xasee bay ñaan kay ñaanal nit ki mu dund ci dund gu teey te bu demee bay faatu nga mel ne kuy nelaw rekk ñu dikk fekk ko mu dem tayit bu mu doon dem ak mbetteel na fekk mu dund dund ba bu demee du bett kenn na dund ci ak wér na dund ci wax ju baax di wax lu baax di def lu baax nekk fi lu baax ba xëy dem waaye kuy ñaanal nit maa ngi koy ñaanal njabootu sëñ ma jooro jeng gi soxna fat lo maa ngi la koy ñaanal ak kullu ko sant loo ak kullu ko bokk ci ngembe ñu ngi leen koy ñaanal gudd fan lool wér lool lor ne mër faw xéewal ne dër faw sax dàkk faw yàlla ko yàlla defal mboolem kuy déglu rajo bi ak kuy bëggee kuy déglu rajo bi ak ñi nekk ci biir rajo bi ak ñi leen di bëggee ak ñañu xam ak ka leen xam kuñ xam ak fuñ jubloog nuñ jubloog kuñ jubloog nuñ ko jubloo yàlla ko yàlla boole ñëpp àdduna warngal kapp yàlla ko yàlla boole ñëpp andil ma Keba Mbaye gërami taalibe yi saa baay Abdoulaye jur na bi Abdul Manaf Jaddaasimi sini. buñ karee doon dan gee ci soxna maay taxaw rakam laa ca maay ci bañam bir naa kii wax le kii wutaas mi ngir ma yoonen danaa ba tey ku yodun bi ci loxoom bu koy neex mu falas ru yi kile wutaas mi ni ngeen bokk wax sa daxta yow binti yaa dagal sa ñëw toog ci kër gi wax le kii wutaas mi moom di wax yu ëpp bu kay neex mu fàllas lu yi أبو العيش لم يعك مرتجى soxna Khoudia Diop ci xarala gi yeneen a ànd ak Baye Cheikh Gaye Rijaal bëgg fàllu noo ko boo ko bëgg ci seen émission ëttu Baye Cheikh bu dee ci wolof ngeen seen wat paw ëttu Baye Cheikh di am samedi ak dimanche maanaam gaaw ak dibéer vingt et une muy juróom-ñeenti waxtu ci guddi muy émission boog ay baati wolof lañ ciy waxtaanee. ay léebu ak ay léeb eh, muy lu am solo di tekkal démb waaye dem di waxtaan ci tey ndax dañu wax ne boo bañee àdduna gàllankoor la da koy jiital boole ko ci say mbir waaye fexe ba du la jiitu di la gàllankoor ndax bu la jiitoo gàllankoor la waaye da laa nga ak moom xew-xewi jamono yi nga koy xam bu ko defee sa njaboot nga xam nanga leen di jubbantee yaraat leen njaboot gi bu baax jubbanti leen njaboot gi bu baax xamal leen leen njariñ yi nga xamante ne moo am ci àdduna te mën a jàll ba alaaxira xamee leen njariñ yi nga xamante ne àdduna rekk la yam fi mu nekk nii am na ñoo xamante ne mësuñoo génn fii ci jeeluñ dara yàllaay bindee noonu am ñoo xamante ne wër nañ Afrique Europe fu nañu dem fa te denc ñu dara bañ koy wër ba ñuy dem na bu fekkee boole wuñ ci woon ëllëg di def lu ñu wut muy àddunay kese lu ñuy yéene muy àddunay kese loola moom la ñuy wax pertement muy koo xamante ne ëllëg da ngay def lu ñuy wax kutus yàlla nañ ci yàlla musal mooy kutus da gis ko itam ba yàgg ñu dàq la ba desee woo dara ñu ne la ko tus nga bëgg fàllu sëñ Yuusu Sàmb yàlla ko yàlla dooli leer daana ko wax naan Seex Bàmba ku ko sëppul ba saa taxaw dangay ngay ko tus magi mag ñi ku ko soppul ba saa taxaw ku lay ramm ku boo ko déggee mooy nit ñiy liggéey fii ci àdduna yàlla ne boo defee benn bu baax ma dolli ci juróom-ñeent muy fukk yàlla boole la ak malaaka muy wax raqiib ak atiit raqib mo yilif atit di ko wax defal ak bayil so defé ben bu bax raqib doli juróom ñent muy fuk so defé ben bu bon atit bëgg bind raqib ne ko xaaral bu ko tuubé do ko bind muñ la mayé dir bu yag tuuboko ko ñu do ko jox ndigal ci kaw bu ko laajaatee mom atit way bu ko laaju sax raqib du ko wax bindal way bu ko laajaatee mu do ko ne bindal mu bind ben kon nga top aduna mi di wutum koom di wut alal di wutum koom ca bari na ci ñooñ muñ xasee am alal fa mu leen ji jëme mooy yëkkati ay wagg tëgal ko di wax manum lëm di wax manum lëm ku wax ñu xuloog yow bu ñu xuloog yow tëkku la wut xariti procureur wut xalis xariti policier wut xariti sàndarma wut xariti avocat wut xariti sëriñ maaman ay tar yàq wax ma tar yàq de tari yàq nga xamante ne lu leen neex def ku ñu xulool tëkku la ne la di nga xam ne duma sa moroom fas yéene laa lor am na alal joj loolu lay def ci nit bu ko defee boo dee borom nay ju liggéey nag sa day liggéey liggéey liggéey bay bëgg a dee waaye seytaane man la ba boo amee alal yow foofu ngay nekk dangay dund ba dee waaye alal joo xamante ne day tax nga bew du daje ci yow bu ko defee nag sa ndey moom lam liggéey def na ko fexe na ba alal ji ñëwut moom ndax bu ñëwoon sawara nga jëm wal iyaas billah ndax tëkku nit doom yàlla ja yàlla yi tëkku leen ak di leen toroxal ak di leen mettital taxul yàlla jox kenn doole ku ko def ku nekk dina rëq sa ndigg ëllëg kon ndey ju liggéey day waral nga war a am alal joj jane gàññ ay bis nekk fële ay kat kat nekk fee eh, loolu ñuy wax Euh, ay étages yu dul jeex fukkeelu étage nekk fële xaw ma naan pilis lañ koy wax man sax xaw ma ko air pilis xaw ma euh, C pilis xaw ma nu mu tudd yooyu yépp am nga am ko war koo am sa ndey ju liggéey tax mu bañ a ñëw am na ñooñu bu ñu ko liggéey kon sama ndey tooñ ma ndax déedéet sa ndey tooñu la àdduna jaarukaay la ëllëg day sax di wéy dootu jeex kon li la koy xañ ndey ju liggéey day tax doo jot ca loola. bu fekkee yow boo amee alal mënoo maîtriser am koom dangay ngay bew di tooñ koo wërta tooñ di toroxal ay nit di damu yàlla dala koy xañ ci kaw sa liggéeyub ndey waaye nag dala koy dencal ngir ëllëg boo demee fekk fa jóp yoo xamut foo ko liggéey kon ki yàlla xañ am koom nay sant sant ga mooy mën naa am nii la fa demee mu rafet njort ci loolu fu mu toll di sant suñ borom jàpp na suñ borom bàyyil na ko fa lu dul jeex lu mu am lu tut tut mu sant di xool ñii mu tane nag ndax ku mu ci doon boo geesoo gis ñoo tane nga sant ci loolu ki yàlla jox alal mu ne gàññ muy sant lu muy sante ni sëriñ Mayoro Dieng mi ñu duppee bisub tey bii daan def ku mu tane dimbali na ku ñew diko jambat dara du xol ba ki ay abdur kat la wala ki daf ma bëgg jaar sama kaw jall la mu wax dal la fa nek yalla dogal mo wara jaar ci loxam lay jaar ci loxam jox ko du xol fu mu koy def ak nu mu koy def du xol fu mu dëkk du xol nu mu tuddu du xol ku mu doon señ mayoro jeng li na won fi ba kërëm wujji borom lolu moy sansi yoy ndey ju mo koy joxe ñu bari dañoo yaakaar na nag ndey ju liggéey mooy am koom koom moom muy wërsëg bi yàlla da koy bindee nit ki waaye lañ ko war a muurloo bu jeexee danga nga fiy jóge sëriñ ma yoro keroog ba yàlla jeexalee tibb yi mu war a tibb ak ndox mi war a naan ak noo la ko fi suñ borom jëlee waaye fekk ndokk ba mu ko waajalee ba lu amoon yóbbu na ca lu ëpp foofa waajal ko it ci lim fii bàyyi ba ñi mu fii bàyyi du ñu dem di koy yóbbu Amérique di ko noose di dugg ci ay avion di dem di fekk si ay baal foofa di fekk ji ay anniversaire ak ñoo xamante ne seen eh, anniversaire la du bés bu dellu si boo xamante ay yéefar a koy def ñu koy bokk ak ñoom di dem ci ay baal di dem ci yeneen yoo xam ne dañ fay fo rek ak day am ci ay baar di fexe di baatare di dem ci ay barab yoo xam ne dañuy baatare ci am ñoo alal yiñ bayil seen njabot seen njabot lool lañ ci def dañ fi nekk di baatara rek carte gu jog ñu dakk caa bok bok ci ñi nga xamé dañuy jongante ci ak jur di jongante ci lo xamantene manum lu mak ma ni dong mom lañ cey def di jongante ci man manub aduna bu ñe diw ab kat la ñu ne duma ko dakk waye bu ñi joxe dañuy dem ba fekk fo nit ñene dok fa joxe ñu ne diw kat moo nekk noonu mu ngi joxe noonu ay diw kooku day moom fajkatu gàcc la ñu jël joxe joxe joxe waaye boo leen fekkee ci yoon dab leen leen sëñ bi déy leen man ko dama moon problème mu 20 000 francs ndax sama soxna daa nekk ci hôpital ba ñu ne ah da nga koy jégal fi ne damaa gënaalu weccet waaye boo nekkee bañ àgg ca mbooloo ma nga agsi ne ko diw sama problème bi yow dong laa ci soxla nga dinil ma ko mu ne lu mu doon nga ne ko sama soxnaa nga ca hôpital ba war naas ya ñu nga ko bind jël ko vingt mille francs moom laa soxla mu daal di lëx-lëx nee la am baye boo nga daal di koy taggal ay maamam keneen ku ko dégg tagg ko baye boo ñu filmé ko def ko ci réseaux sociaux yi muy mbaalu jokkoo yi loolu la olof di wax mbaalu jokkoo réseaux sociaux bu dee portable jollo sa la tudd bu dee internet lënd gi la tudd bu dee micro bii may waxee ngóoleer la tudd kon ñu bàyyi ci xel nga daal di koy badd ci foofu rek ñu wax ko ndax loola nga ci am ëllëg doo ci am tus kon ki ndeyam liggéey moom bu amutub dërëmit ma ngay sant yàlla di sant yàlla yàlla di ko dolli ay xéewal di ko ko dencal ëllëg ëllëg mu bokk ca ña gën a kawe ay kër ca ëllëg ku la fa gën a sutub étage dàq la aljana jam nekk noona la la koy rawe ba faaw fii nag nit mën a laa ëppale ëllëg nga jot jot ko ba ëppale ko waaye loo ko ëppale koomam àdduna nañ ci bàyyi xel 88 628 19 05 oustaz Mbaye Ndiaye ñu ngi koy seeyaat di ko ñaanal jàmm sëñ Moustapha Thiam ñu ngi koy seeyaat di ko ñaanal jàmm soxna si nga xamante ne moom lañ tuddee woon émission démb wéetam muy soxna Roqaya Tall ñu ngi koy seeyaat di ko ñaanal jàmm li ma soloon démb sax moom ma koo joxoon ñu ngi koy seeyaat di ko ñaanal jàmm euh, ci yéenam jooju ndax émission bi santuñu ci kenn mu def ñu dërëm dërëm bari na ñu may def émission ba noppi sax duma leen gis duma leen dégg ñoo xam ne dama leen koo tuddee duma ma fa jaar du leen gis du ma leen dégg ndax loolu taxu koo jóg fàttaliku nit kiy dund balaa moo génn àdduna ñu waxal ko lu baax li mu fi nekkee bu fekkente ne gis na ne loolu kat da ko war a yokk ndax xamut woon ne nii nii la toll fi nit ñi mu yokk ko bu fekkee ku dem la ñu waxal ko ko nga xam ne da nga koy fekk si yow fekkee ëllëg nga góor góorlu ci lu baax ba keroog nga koy fekki lii moo tax émission bi jóg jàpp ndey ak doom ak baay ak doom boole leen benn jataay ñuy teewlu lenn di yéenante jàmm lii moo tax émission bu jóg Baye Bada Ndiaye tudde woon nañ ko émission Baye ngoom ñu ngi koy seet di ko ñaanal jàmm Baye Cheikh Samb eh, Mami Ndiaye woote na demb di sunu auditeur di sunu xar di sunu doom eh, maam Diarra Ndiaye moom itam foofu lay jaayee ca arrêt ba ak maam Diarra Ndiir di leen siyaare ñoom ñëpp di leen moom jàmm Mamadou Euh, ba jaaykatu soow ñu koy seet di ko ñaanal jàmm moom itam ku bëgg a bokk ci émission bi da ngay def 88 muy ñaari 8 628 muy ab 6 akub 2 akub 8 628 nga def 19 muy 1 akub 9 nga def 05 muy 0 akub 5 bu dee crédit di nga ñëw bu dee leneen lu dut crédit nag doo mën a dugg andil ma ki nga xamante ne mooy Keba mbay ci xalam ak way

Hatinya malam, tenang ya lama men. jërëjëf soxna Khoudia Diop moo ne ci iya, di ini bi nga xamante ne gaaw ak dibéer lay am muy samedi ak dimanche saa ya yu yàlla may wér gi daan ko defal muy eh, la Eh, day yee ndaw ñi di leen xamal di fàttali mag ñi yenat ñi ku bëgg a bokk ci émission bi nga jëf 88 628 19 05 ndes tayu waxoon nañ ko soxna si eh, dale eh, sëy moom itam di bëgg fàllu daal dina koy tekki ñu wax leen li nga xamante ne mooy way muccius moom itam tekkee guñ ko way muccius tekki wuñ ko ndëlle amul kerit caxoon nañ ko fi tekkee guñ ko ndëlle amul ker góor gàtt bari carit caxoon nañ ko fi kenn tekkee gu ko moom itam ak yër ko mu yër la yëroo ko mu yër la euh, jekk laxasaay demtil xare ak luy waaj te du wàlli yooyu yëpp ay cax la yooyu yuy démb la euh, ñu ngi leen ci xaar kon 88 628 19 05 88 628 19 05 boo bëggee bokk ci waxtaan wi rek foofu ngay jaar kon eh, ñu fàttali leen rek ne leen am na soppe yoo xamante ne ñoom itam démb woote woon nañ ci émission bi sëñ Modou Diakhaté moomu sëriñ Aliou eh, Seck woote woon na ak eh, Mami Ndiaye woote woon na démb itam moom itam ak Cheikh Baye Fall. muy sëñ Cheikh euh, euh, Baye Fall Baye Góor euh, di doomi soxna Awa moomu ñu woowoon woon 628 19 05 mbokk bisimilah. waaw. Ah. ku baax. waaw. Ah, ku baax kooku. waaw ah, ngi siyaar. ku dafa mel ne daf ñoo déggut bu duggatee na wàññi li nga xamante ne mooy rajo bi bu wàññee rajo bi. Eh, dinañ mën a déggante bu baax 88 628 19 05 kon sëriñ Cheikh bay Fall ak soxna Awa Seck dugg na ñaari yoon eh, naka noonu tam eh, soxna Mbène Kebe moom itam duggoon na ñu koy siyaar di jàmm ñoo ñu woon nañ fi ñu ngi siyaaree soxna màggat mbàkke soxna màggat mbàkke moom itam day déglu saa su nekk émission bi. di ñaanal jamm 88 628 19 mbokk bisimilah. waaw sama sëriñ. ku baax kooku. man Ibra Seck Touba. Serigne Ibra Seck Touba ñu ngi lay siyaare. waaw waaw Ya yàlla na ma gëm siyaare. yooyu Mana woote woon nga. Mana woote mana na waaw maanaam ndëlla uh-huh. mana ab de lañ ko wax ñun ab maanaam jekka laxasaay lekk jax laxasaay di mu xare uh-huh. ah, indi lañ ko doy indi buñ tay maanaam booy togg ni ba tay ceeb baa nga tay cere waaw waaw waaw lañ ko daa wax ba tey li nga naa boo ko yurnoo mu yër ko mu yër la yëroo ko mu yër la uh-huh. ah, paftana guddi lañ ko daa ah, dàq na ragal ba tay paftana guddi wallaay dàq na ragal ba tay loolu lañ ko daan wax ñun. waaw. kon daal sëñ Ibra Seck yaa tekk loolu. waaw ah waaw ci li ma yaakaar. waaw noonu nga ko waxeet nag ni la demee sax loolu nga wax lépp moom la waaye ma lay laaj ci way mi cuus. waaw way mi cuus. way mi cuus. ma ma tarkin ko baax am tuuti. waaw ba Ibra Seck kon ñu ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm. amiin amiin amiin fo ne wooyee. Touba Ndam ci bi. ah waaw waaw bindoon naa ko démb kay Touba wax nga dëgg de. jërëjëf kon ba ci kanam. waaw ba ci kanam jërëjëf. kooku mooy sëriñ Ibra Seck eh, Touba ci wetu garaas bi eh, kon tekki na eh, yër ko mu yër la yëroo ko mu yër la muy poptalu guddi. boo ko xoolee ni boo nee yunn nii day mel ne dana yunn boo def ragal danga nga naan pëccet daw poftanu guddi la kon eh, bu mu xalaat ci way mi cius way mi cius a ngi fi bëgg a yàgg nag te ñu bëri xama jàppaguñ ko waaye bu noppee rek ma laaj ko bu làqu dóoruma la ak luy waaj te du wàlli eh, moom ku xami wolof la wolof démb te lii dañ koy andi ngir gone yi jàpp ko ndax buñ ko jàppee dañ koy euh, enregistré di ko def ci li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi muy mbaalu jokkoo yi dañ ko ciy def kon waxoon naa leen ko am na ku waxoon ne na nga fàttaliwaat ndax dama ko enregistré wutoon muy maanaam connexion nuñ koy waxee connexion mooy lënkaay connexion mooy lënkaay lënkaay mooy connexion connecté connecté mu ne dama connecté gut damaa lënkoo gut wala maa ngi connecté léegi kon maa ngi lënku léegi kon dama bëgg a déconnecté may ma tuuti nga doog maa woo ndax damay déconnecté nga ne kon damay linkiku déconnecté mooy linkiku connecté mooy lënku connexion mooy lënkaay bu ko defee bu fekkee sa batterie dafa jeex nga ne sama euh, yasar ak euh, euh, gi moo yàcc ko 88 628 19 05 bisimilah. salaam wa rahmatulah. suñu ñu ngi siyaar. noonu kasaalika ku baax kooku. dañoo bëgg naan ci dañuy def tur bi. sëriñ. man dañuy def tur bi. foo ne wooyee. Touba. Touba ci ban quartier. Darum. Ndeysaan kon mi ngi doon wooyee Touba Daaru Marnaan di ko ñaanal jàmm. Eh, di ko ñaanal xeewal na jaaraat ci 88 628 19 05 bu ko defee rek eh, dina man eh, bokk ci émission bi di ëttu baay seex nu duppee ko tey sëriñ Mayoro Dieng yàlla na ko yàlla dolli leer ak ña nekk barsàq ñépp di leen ñaanal jàmm mu nga wootee Touba Darou ma naan koy ñi siyaare njabootu mm, Serigne Cheikh Awa Balla yaa xafaaru sunum gépp Baye Ndiaye ñu ngi lay siyaare ni siyaare maam Thierno mi nga xam ne moo nekk ci eh, eh, boppu eh, njaboot gi di xalifa Serigne Cheikh Awa sama turandoo yaa xafaaru sunum di ko ñaanal jàmm maam Thierno moomu di wajuram wajuram moom itam sëñ Cheikh Awa Balla di maam Thierno ndamal daaru di Cheikh Awa Balla di waajuram moom itam moom maam Thierno moomu ñu ko duppee Cheikh Ba ku ne dégg na Cheikh Awa Balla baax Awa ku ma juul eh, maam Dieng warax Mbodj Awa ak Mayik Awa ak Fatou Dame Awa Balla Cheikh Awa Balla baax Bernadar binuk teen mu ne Bernadaru banuk teen gàtt jege fees te neex ku ca dalaa neex Eh, borom Touba Roof ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmmu koor joor ak joor muy eh, sëriñ maam Thierno bu dee ci wàllu moyal mën na ko lekk bu dee ci hadiya ku ne xam na ne maam Thierno mooy rek Seexul Xadim jëmu wóolu woon te itam kóolute dafa am solo te it suñu wajur dénkoon nañu ne. Euh, bul bul mer mukk bul naqarloo wóoluwuma la ku la ne wóoluwuma la bum la naqari waaye sàmmanteel ak sa ngor ak sa jom ak sa diine ba kenn du la ne wóolootuma la maam Thierno rek la Bàmba wóolu woon ba ko njaboot gi dem juróom-ñaari at euh, yu tegal ñuy wax juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari saa muy lu wér a wér a kon maam Thierno moo demoon ndar dem fa akum nite ba dellusiwaat. seexul xadim ne ko jara dara jëru maa wax jot naa ndigalul wuy ji tubaab bi eh, kon lu am solo ngoogu kon yow moomu wooree wootee te lépp turi daaru marnaan ñoo la bëggale loolu xamal ne daaru marnaan ku ca dem boo maree naan dëkkub sëriñ Tuuba ku dem texe noonu la ko woykat ba woye woon muy woy wu yàgg boo xam na ca ci yu jëkk la jamono jamono yi sëriñ Tuuba gii la woon 88 628 19 05 ku ci bëgg bok ci émission bi ci ngay jaar muy juroom ñett fuk juroom ñett juroom ben témi la ñaar fuk ak juroom ñett fuk ak juroom ñent tous juroom kon mbokk yi ay waati wala fa ngogu eh, jàll waax wax boko déggé moy li ñuy wutee eh, fa nga xamantene ne eh, mom lañuy wax wax ke ke ambassade muy amba ambassade bi fa la ñuy wutee lañ fay wutee nu mu tuddati sax dañuy wute ambassade fàtte naa ko de ay waay waay waay waay dëgg naa wolof yi ba fàtte ko yàlla wax da la tudd ci wolof waaw mooy loolu ñuy tukkee li ñuy am doo ko tukki nu tuddati sama technicien andil ma xam te wax ko waay وسلم مهما بغات مع لغو سلمتم تراد مع الرجال أبي وباب لم يكن مرتجا jërëjëf soxna Khoudia Diop moo ne ci xarala gi xarala gi yéen a ngi ànd ak Baye Cheikh Gaye bëgg fàllu noo ko bokk bëgg seen woppawu attu Baye Cheikh muy émission boo xamante ne day fàttali mag ñi di jàngal ndaw ñi ndax Baol Médias mooy rajo bii roote ci mag ñi di ko sotti ci ndaw ñi ak jigéen ñi ndax boo bëggee defar réew fexeel ba jigéen ñi defaru ak ndaw ñi kon li nga bëgg a am di ko am kon euh, foofu muy ambassade bi nga xamante ne moom lañuy ñuy wutee loolu ñuy waxati mu na sama xel waxon nañ mako way faté wat na ko passeport ay way passeport passeport moy jàll wax jàll wax mom la ko wolof di wax dama japp wolof ji nag ba faté tuba bi waw ndok waw fofu la dé ñew waw waw non la way way na fi nan wolof wolof ngaan man dé dama mo wolof dégg wolof la xom ko ci wolof na ko wax ci tuba yaras rek muy complexe bàyyi len yaras ji yaras moy complexe moytu len ko kon ambassadeur mooy woy la mooy ab ambassadeur mooy woy la bi ambassade muy barab ba ñuy wutee jàll waax mooy eh, ma la kon mooy la mission bi kon ma la mission nekk ca la mission ba ambassade bi mooy laamiso bi malaamiso bi mooy ambassadeur bi mooy liggéey jàll waax yi di ko joxe bu ko defee carte d'identité mooy kayitu jëm carte d'identité mooy kayitu jëmm casier judiciaire mooy kayitu yoon casier judiciaire mooy kayitu yoon kon ñu andi leen yooyu bu ko defee gëb la ga mooy capital mbaamulaan mooy océan bi nga xamante ne moom la an muy océan Atlantique bu ko defee li nga xamante ne mooy environnement mooy sunu keew mi ñu bàyyi ci xel mooy keew mi di ndëkk wër gi nga xamante ne eh, moo nu wër 88 628 19 05 mel na ne ceex yooyu jot nañ koo jël kon émission bi ñu xamal leen ni ñu ngi ko tuddee Serigne Mayoro Dieng doonoon def ko lu baax defal ñu ñu bëri lu baax fii ci Daaru Dunya ma nga fa nga xamantene moy yamul khiyam waye yal na ko dàqal fii ndax wax nañu yamul khiyam ku fa dew cëpp donte kat lu bax nga la ngay bëgg mooy yàlla del laa dellu siwaat delloo siwaat donte ben waxtu la moy ben une temps nga da di fi nek rek bu de lu bax nga daan def nga gëna def loolu nga xana genn noo yalla gok goog néewoo ci lu bax nga doli ko wat ko bu de lu ban nga daan def nga reccu ba diggante boobee la muy gàtt gàtt nga gis lu baax boo ko defee na la ko yàlla yokkale na mu ko yokkale ñe foofa benn waxtu boobu rek mën na cee def loo xam ne mën naa dëndi ay ajjana yu bari waaye bi nga nee ci daar duniyaa xamoo ko yaa ngi topp daar duniyaa rek bu dara xewee doo ca jëf lu baax lu dut fas yéene caa jëfe looy amee bàkkaar wal iyaas billah daa am nga agsi jëkkoo xalaat ku nga dindi dimbali ko jëkkoo xalaat woo sapeur pompier jëkkoo xalaat woo police wala gendarmerie wala chef de quartier ba la nga jëkk xalaat mooy maa ko jëkk a filmer maa ko jëkk yóbbu ci eh, lënd gi walla maa ko jëkk badd ci eh, eh, mbaalu jokko yi boo ne ca sag jolo su daal la nga bëgg mooy daal koy jël joxe ko ne maa ko jëkk a joxe mi ngi nii ci barab sàngam la amee nangam ak nangam a fi am doo xet li wala nga xool ba xam nit gaañu na ci wala dara wala nit a ngi képp foofu boo ko yëkkati woon diir bi ngay filmer mu mu mu mën a de mu mën a am euh, sawetaas beneen bi muy ñi nga xamante ne bu ñu tuubut jégglu bu ñu faatoo des na rëq seen dëgg wala bala ñoo faatu àdduna gii des na ci rëq seen digg muy ñi nga xamante ne ay kati portable lañ ak ñi nga xamantene ay kati radio lañ ak ñi nga xamantene dañuy yëngu ci leneen lu mëna doon wala ñi nga xamantene tooñ rek mo leen neex ak ñi nga xamantene dañu umpule lor ak ngariñ na ngeen ma déglu bu baax yeen defar kati portable yi jollosi yeen ñi nga xamantene yé ko yeena koy liggéey doon ay way xarale mais féwu moytu len seen bop ne ci sax jollosu su defar ko ba mu nopi nga bëgg ko essayer daa di bés numéro police ndax gratuit la wala nga bëss numéro sapeur pompier ndax gratuit la ne da ngay essayer portable xolal li nga yak bu bare ba nga mat ñaar fukki nit ñi ko def bu ngeen wote du ngeen wote tus keneen wote sapor pompier agence ba agence sapeur pompier taxaw muy tak der ba baña wuyu daal na xam naa rek ñi rek la ñoy wote muy ko xañ xolam loola la japp waye ginaaw li la fi andi moy li bu ñu kangat lo ak bu ñu kokule lu nek wote ko alo ndax xamoo koy wootee ko lay kangat loola xamoo koy wax dëgg la benn musiba ngo yow mi nga xamante ne da ngaa réew rek nag nekk ci koñ amu tuut dugg ci naar bi wala nga dugg ci gën gañacce tuuti xamatoo lu la të ca fekk mën naa am loolee lu lay jëme sawara lay doon ndax yaa ngi lore ngay woo sapeur pompier ñëwal fii ci quartier sangam boo jàddee nangam rek wala ñëwal fii ci dëkk ngam mu war a dox 20 kilomètres wala 40 kilomètres nga ne ko am na lakk gi fi am wala am na ko fi rey nit wala nangam accident am na fi mu taal wota sapeur pompier ba piip piip piip ba àgg fekk dara du ci dëgg da nga doon kàcc ma bii bàkkaar biir bi loolu amee nag wota pompier bee dem na wuy ji lu dëgg beneen wota pompier bee na duy na ndox dem woy ji lu du dëgg ambulance pompier ba dem na woy ji lu du dëgg nee nañ ko am na ko accident fii ca du dëgg sappoor pompier nag benn woto néew fa lakk am na foo xamante ne diggante foofu ak foofu juróom-ñaari kilomètre matu ko ñett dong la ñëwoo sappoor mu ne woto yi dañoo génn ngeen nekk ci lakk gi fay ba kenn dee ci xarit yaa am da jàmm ya biñ daataan gis sapeur pompier ñëw fekk am na ko dee lu bëri yàqu na ñu egg si fay ngeen daal di aalu seen kaw liggéeyu leen fu ngeen nekkoon yéen na ko def bu ñu leen fayee di leen jox xaalis ngeen def yi taxawal yéen sapeur pompier liggéeyu leen fekk yéen yooyu nga xam ne nag yéen naan liggéeyu leen yéen a am ay dëkkandoo ak i xariti kàccikat yoo xam ne duñ wax dëgg ñoo fa nekk di woo sapeur naan ko nangam am na ca du dëgg bañ a daw seen essence ba ba mu jeex. wala bu essence ba jeexul sori nañ sori goog bala aksi fi fii be mi am wala fi ñuy sawé ñi ne ci accident bi fekk jeeyé am na ba noppi am na bakkan yu dé wa yow mi nga xamantene da nga amone lo gañe ci nar bi wala nga dox ba for for calpe jambour delloo woko ndax ragal yalla waye nga ku wa defaat ci musiba mu tol ni moko tobut bu dé fo yaakar na mo fa ngay jëm bayi len ci xel bu baax yaraat leen njaboot gi ñu am jom am ngor am lu ñuy jomb am lu ñuy rus am la ñuy ragal nit bu amut lu muy jomb amut lu muy rus amut lu muy ragal bàyyi maa ko gën fuuf xaj kël bu moo ko gën nit bu amul rusukaay amut lu muy jomb ragalut kenn rusul kenn nit koo xamante ne boo taxawee na ci problème bi coow wala nga xuloo wala nga yëkkati jaasi wala paaka jëme ko ci nit ku la man di kar doo ko bàyyi boo dee xuloo di waxante lu ñaaw ku mën a ñëw ci yow naan la dee taxawal doo ko faale amoo kenn koy rus ku rusut kenn yàlla du la rus am na koo xamante ne kilifa la dafa doonoon kilifa goog day jaam yàlla fu mu toll moom kilifa googu yàlla dogal na bi mu faatoo fekk na am taalibeem bu ne woon sama sëriñ bii kat moom laa tarbiyu moom laa jox samay doom waaye bu ma faatoo bu ma jullee xarit ba daal di koy wax sëriñ ba sëriñ ba ne ko ndax waxoon na la sabab si mu ne ko waaw mu ne kon naa wut keneen ku ko jullee boo ma waxee sabab si mu ne ko lu doonoon sabab si mu ne ko moom de dafa ne gis na ne yaa ngi jaamu yàlla na mu ware li la lislaam digal gisuloo ci bàyyi nee na waaye dafa am lu mu seetlu ci yow borom baatin nga ca ku la mas tooñ duma nga ko masoo jéggal kenn ku la mas a tooñ rëq nga ndigam ku mas a dal ci sa kaw rek gis na ko ci àdduna ñëpp teg nañ ci seen bët moom gis na ne mos a gis nga yërëm kenn mosoo tooñ kenn nag mu ne nag ginnaaw daawoo yërëm kenn ca juleeb néew moom allahuma rek la da ngay ñaan yàlla yërëm ko ci nangam yàlla defal ko yàlla muy nangam yërëm ko ay ñaani yërëm rek la allahumma ighfir li warhamni wa diini ak yooyu yooyu ngay wax rek war war a suq nii ah allah yooyu yëpp allahuma rek ay ñaan rek allahuma gum mën a doon rek néew bi ñu tëral daal yàlla yërëm ko jéggal ko yërëm ko jéggal ko allahuma ighfir xam warhamha bu dee jigéen allah allahuma ighfir war warhamhum ñi mënut a wax ñaan gi loolu la ñuy wax foofu laa bëggoon a ñëw kon ñu bàyyi ci xel. ginnaaw yàlla yërëm ko dong mooy juleeg néew te moom mës sa yërëm kenn képp ku mës sa yërëm kenn boo ñaanee yàlla ne yërëmal kii yàlla du yërëm kooka loolu laa jàpp moo tax ma ne sama sëriñ bii bu mu ma julee ndax gay taxaw ci yàlla naan ko yërëmal sama taalibe bii te mës sa yërëm kenn yàlla du ko nangul yàlla kuy yërëme di yërëm julit ñi yaay taxaw fi kanam kenn naan yàlla yërëmal yàlla yërëm kooka kon bu mu ma julee sëriñ bi na ko dinaa wuti ku waye bés ni ki tay ba efek ma koy fekki mom dootuma ci top nit dara lu way def jeme ko ci man muy lu bax muy lu bon lu mo ne don jegel ko jéggal kon mbokk yi doon déglu sen wopo bi nga xamantene moy attu bay cheikh ngeen ànd ceeg baay seex ngay yàlla bëgg fàllu noo ko mu ngi di tàggoo fi ñu jagalé leen ko serigne Mayoro jeng donon def ko lu bax dembit ñu jagalé won ko soxna si nga xamantene moy soxna daba taal ak Baye mbay Dieng alxuraan way juru sëñ Modou Diop ja sëñ Modou euh, Dieng euh, sëñ Modou Dieng sëñ di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di ñaanal moo dem ñi doon déglu ak woote ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm eh, doomam sëriñ Moustapha Dieng woote na eh, eh, ki nga xamante ne mooy sëriñ Modou Jaxate Dieng woote na Baye Jili mbay Touba senegal woote na ki nga xamantene moy serigne fallu ba wote na ki nga xamantene moy jere bëgg fallu jere jéeg jeey yalla jeey wote na ki nga xamantene moy ibra sek ba ibra sek wote na démb tuuba ndaamaatu wote wat na tay ak eh, ki wote won daaru ma naan celeb turam ak ñeneen ñi woote ci jottuma bind seen tour ñu ngi leen di siar di leen ñaanal jamm ñoon ñep soxna busa gay ñu koy siar di ko ñaanal jamm ak soxna xuma ak euh, soxna Adama Thiam ak soxna Malem fay di leen ñaanal jàmm euh, di leen ñaanal jàmm mboolem ñiy déglu rajo bi Fatim Mbodj ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal euh, di siyaare njabootu Baye Bada Ndiaye Baye Bada Diop Baye Cheikh Samb ak ñi nga xamante ne ñooy déglu rajo bi te mu woote wuñ waaye wumpule wuñ sëñ Talla Diagne sëñ Amar Diagne Baye Mangone Thiam. Baye Thierno euh, moom itam di taalibe Daaru Musti nekk foofu ca marché Mame Binta muy Baye Thierno Touré di ko ñaanal jàmm ak sama jàngalekat ba di ko ñaanal jàmm euh, sëñ ba Ndooy sëñ Basiru Ndooy di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ak euh, mbokk yi ne woon sëfër taxi yi nekk foofu maa ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm teg ko ci loxol Baye Cheikh Dieng. monsieur wol tak yi nekk ci marché mam binte di siar wa marché mam binte wa marché dég ba ak daru tal sil gep ma ngi len siar di len ñaanal jam bawuma kenn touba ndiarem ak eh, jannatu mahwa ak eh, caaween ak eh, keur rijaal rawatina njabotuk sëñ rijaal sek gem bamba gep di len ñaanal jam mok yi ñu fatale leen ne rek lan fi tawat bu soba yalla gaaw bi ñew inshallah ak dibéer maanaam kon ñu ngi leen di dig daje waxtu woowu ci wëppawu ëttu baay seex muy émission ëttu baay seex ñu jagle woon ko sëñ Mayoro kon mboolem way dawlu yi na ma ñëpp jàngal lexlaas e, ñetti lexlaas yoo xam ne Faatiha koy jiitu bu ne ànd ak bismillaahi rahmaani ak teelu ñaan way dawlu yàlla yërëm leen واحب لنا التيسير والفلاح في كلتين دارين والنجاح وكن معيذنا من شر حسد ما شريفا من شر العين يلا والشر سين وشر القلق انزيم مع جن وسوات السم يا الله والتف بنا وخونا وكلنا وابنا وسر ختام ربنا وسلم على النبي وسلم واخذ بحاجات كل مسلم يلا يلا yàlla خلي يا خلي يا خلي نيخ جيكو xel لورني مر xéewal ne dër law faw sax dàkk yal na yàlla defal jàmm ak mujj gu rafet macha allah sallallahu ala muhammad soxna xuje moo ne woon ci xarala gi jéba juba sallallahu ala muhammadin lu waay def boppam ku yodun bi ci loxoom bu koy neex mu falas ruy kilé wu taasimi si ku Jibril di ñëw fi moom di wax yoo wax lay boot ki lay wut Asimi ci loxo wéyal moom tabaxaan ba woo salim toog turaan maa tijaali rabbi wa baabulay lam yaaku murtajaa